ñëpp mënuñu bokk gis-gis ñëpp mënuñu bokk bëgg bëgg bëggandoo ko c'est impossible wow. mais c'est juste dañuy wax rek bàlla gay mhm. bàlla gay lan moo lan moo ko perte loo mhm. waxtaan bi yëpp ci cadre sport lañ koy teg quoi pas ay affaire de loo affaire yooyu noonu waa perte moom mooy ñàkk gëm boy bi rek dafa xeeb boy bi ba mu ëpp bay laa ñëwal ñu lay siyaar waa ah, alo delloo siyaar allo naka journée ah, baax waaw ah, sant bu baax ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay bëggee bu baax jaajëf jaajëf naka fi nga nekk naka combat waaw combat bi ah waaw lañ faraloon Balla Gaye mooy suñu mbër ah hmm. <coughs> waaw Balla Gaye mooy suñu mbër waaw defet bi métti nañu trop nag. ama ah mais sant hmm. yàlla mais sant yàlla quoi. c'est la sport la. sport la. Hmm. mais dama dégg léegi ci waxtaan bi quoi am ku ne euh, am ku ne Balla Gaye xaw xaw ma karkaas la wax xaw ma lu mu wax noonu quoi. Hmm. waaw non ma ne bàyyi laa du ko mu dem rek. laay bàyyi ko mu nga combat bi démb. bu baax seetaan naa lépp kay. Hmm. waaw Balla Gaye démb. baax na. wala baax na deuxième bi mooy. waaw lan nga yaakaar ne moo ko xañ combat bi. waaw d' accord léegi démb nga ne lu mu andi ndax baax na wala baaxul si man. waaw ci man baax na. waaw baax na lan moo yaakaar ni moo ko xañ. li li ma yaakaar ni moo ko xañ. non defet moo ñëw rek. Hmm. no spor sport la ñuy wax. ah. spor dañuy wax si sport. waaw ci sport la defet moo ñëw waaw. Mm-hmm. maam maanaam fi ma bëgg li ma li ma lay laaj xam naa ne ñëwaguloo ci. waaw. Balla Gaye ban erreur la def ba daanu. erreur bu mu def ci man li gis erreur bu mu def ba daanu moy bu mu dewe japp tank bi boy tank boy ñaa bi hmm. boy ñaa dafa boy ñaa dafa dafa dafa arrière rasu hmm. raci tank yi quoi ràcc ràcc nim defon ball nim defon modlo wa dafa ràcc xëcc ball ba ball ñew hmm. ba gën ba dugg mais ball gay ci man man lool bu doon man da man bok sumay genn sumay sigi mais bala amoon na opportunité pour jàpp beneen tànk gauche Boy Niang bi. Mm. Mm, mm. foofu mënatul dara sama waay. bàyyi ko mu <laughs> vidéo bu baax. waaw ñëwal rek. loolu bu fekkoon mbër bu suppul la bu fekkoon mbër bu suppul la. Mm-hmm. non ngeen gis ngeen gis jël bu garaaw. Mm-hmm. ma ne bu suppul la. foofu noonu foofu noonu lu ko booy bu ko lu ko bëgg a bañ a xëccee bu mu dugg si biir. pourtant loolu ngay wax doon na ko jéem a tànte de mais boobu boobu boobu jeex na. loolu ngay wax doon na ko jéem a tànte de. waaw moo tax mais xam nga tey. Mm. Balla Balla Gaye cuunewul ci bëre. non kaamil la mbër la. voilà moo tax boo waree daanu rek da ngay daanu bari sëñ Fallou. Mm. waa léegi léegi yow loolu nga wax noonu. loolu nga wax noonu. Balla Gaye da nga wax li mu waroon a def. <coughs> est ce que Boy Niang dafa war a taxaw est ce que Boy Niang dafa war a taxaw di xaar di déglu Balla mu def lu mu bëgg a def. <laughs> non Balla Gaye lu mu def loolu la Boy Niang waroon def parce que Boy Niang mooy xale. Balla Gaye dafa waroon taxaw xaar waroon taxaw xaar man su ma dégg man su ma déggee si sama sama xel mu gàtt. Mhm. Boy Niang dafa gën a muus bala gay kon. non du gën a muus mais c'est que Balla Gaye lu ko Boy Niang xam nga bala Gaye. en ak en la ñëwee ak ak ak booy bi parce que li ko booy bi wax la loolu xam ne kenn mësu koo wax. une may boo ñëw ma ah, ñëw. waaw looloo tax. waaw mooy mooy la laay wax rek. da ko gën liir combat bi. waa en la bëre rek. Hmm. da ko gën a hmm, da ko gën a liir combat bi quoi. waaw lu mu bëggoon def booy ñaar da ko bëggoon humilier da ko bëggoon. da ko gën a yeew voilà hmm. da ko da ko bëggoon humilier. mais xam nga am na yoo xam tamit yàlla suñu bërëb du ko seetaan quoi ñun Balla Gaye mooy suñu bër barki ab grand barki Seydina Mohamed ténor yëpp bu ñu doon bëri te Balla Gaye bëriwul du maye mhm. porte libre ku ñëw jox cent mille franc barki Seydina Mohamed du dem. waaw mais nañ sport la. Hmm. non sport la nag tawaay. sport la. Hmm. billaahi non après. xam nga yow xanaa yow sportif. non si sportif la mais xam nga defet moo eh? neexul quoi en plus tamit yi may sëg yu gars di wax yenn yi gars di wax ci Balla naan xam nga eh. jeexal naa xam nga yooyu noonu ah, mais yooyu moom mënta ñàkk yooyu moom xam nga xam nga xam nga xam nga bul bee tourné rek te xam ne da ngay xam ne moom nii la daan def gars yi li nga yëg démb moom la gars yi daan yëg waaw. bul tourné rek. l'essentiel bi mooy mu dem defaruwaat. bul tourné rek. waaw dem defaruwaat ñëwaat. parce que moom dafa bokk ci làmb xam nga Balla dafa bokk ci làmb te wax dëgg yàlla man moom supporté wu ma ko mais dafa bokk ci làmb te day neexal làmb. non Balla xam nga lu war def l'essentiel bi mooy mu dem defaruwaat rek ñëw loolu kese la man en tant que fan en tant que fan Balla Gaye dama koy ñaan bu fekkee dina dina ma dégg dina dégg sama sama sama message bi ah xawma ma nag hmm. bu bëreeg Eumeu Sène ba pare hmm. la leen écran bi la leen écran bi ma ne su su bëreeg Eumeu Sène ba pare waaw hmm. non na tekki ngemb quoi ngemb Sa Thiès mu dem quoi mu bàyyi teelul teelul ñun moom wax dëgg fa yàlla man boog wax dëgg fa yàlla doyal naa ci moom quoi barki sëñ Fall defal na lu ñu ne. bilaay mm. pourtant mën na defaat dara de. non mën na defaat dara de. grand bilaay Balla bu fa jojee bu ñëwee day gën a aay. grand. Balla du mag alxal bu ndaw la. barki alxuraanu mm. karim Balla Gaye mooy sunu mbër moom lañ bëgg. mais Balla Gaye bu continuer mm. nii defet yi day gën a bëri te day gën a ñaaw. xam nañ ñu xam nañ xam nañ xam nañ sunu mbër quoi xam nañ suñu yor. <laughs> bilaay. waaw ah, mais dara yàlla baax na ñaaxaat ko. non man salaamaaleykum grand yow moom di wax laa bëggoon fekk fii balaa ngay ngay dem. waaw maa lay déglu. grand gi nga supporter day mille défaite mille victoire. damay dëgg. nga doo supporter sa mbër rek c'est parce que dafay daan di daan di daan déedéet. non à chaque fois nit ki bu daanoo si nga ko gën a mën a. si nga ko hmm. gën a mën a encouragé gis nga bul wax ne Balla Gaye. fekk ngembam. Eumeu Sène am na doom bu Balla Gaye mën a taq. jabar hygiène de ñoo bokkul. te ma seen ay continuer di bëre. Balla Gaye non mais xaaral xaaral ma expliqué voilà gis nga nag comme Balla Gaye métier lambam la. dafa war a mm-hmm. am benn hygiène de vie professionnel comme Eumeu Sène. Mm-hmm. dem defaru jiwaat. loolu la war a am. xam nga waaw xam nga dafa amoon ay temps. yéen ba leen comprendre loolee. dafa mm-hmm. ay temps gis nga gis nga sidit sidit dafa am dafa am solo dafa am dafa garaaw. dégool mu ngi koy wax mais comprendre luñ. Uh-huh. te ba pare gis nga booy bi. Uh-huh. musul ragal Balla Gaye dafa uh-huh. amoon yaqin ni que. Balla Gaye bis bu tasanteeg moom dina ko daan. ni Balla Gaye amee woon yaqin yi que Yékini dina ko daan parce que bi nit ñi di soxla conseil Yékini Balla Gaye moom soxlawul woon conseil def na ko kii maa ko mën. loolu moom ñëwaat te gis nga bii dafa gën garaaw. parce que nga Balla ay jamono da doon ñëpp xamoon na li mu doon utiliser pour yaramam. waaw sidit yooyu nag day lâché gis nga gis nga toowu ndox. taux taux yi ngay gis ni ndox bu si hmm. yàggee jaar bu yàggee day xuut waaw gis nga loolu mu daan utiliser dafa am doole am doole boo hmm. xamante ne nii day dugg si sidit yi da leen ni parce que parce que parce que ki euh, dose bi mu am dose bi mu hmm. am pour ëf xolu Balla Gaye ba Balla Gaye jël poids boobu noonu buñ ko tegaloon ñaari barigo jamono boobu balaa dix minutes laa la wax ni arbitre bu ne pris ku fa mën fekk day daal sa kaw day daanu par force mais loolu amul mucc uh-huh. amul mucc. dëgg la loolu xam koy utiliser. koo uh-huh. xam koo xamante ne day ñëw day ñëw carrière am si benn. day natt day natt carrière am si cinq ans. waaw utiliser ko daan. yoonam. sa waay moomu yaa ngi uh-huh. dafa bëgg nga jël ko de. dëgg kan si. Mariama Faye ñëwal ñëwal ñu déglu Mariama Faye ba pare. non Bamba moomu ci suuf. man la man la a wax ah? waaw ñu ngi lay déglu léegi dafa am loo xamante ni bi ma ne li ñuy wax long et doux long et doux benn benn benn façon hygiène de vie bi boo ko bëggee doo yàqamti fi ngay gën a màggetee foofu ngay gën a jàppee looloo daal ëmma seen mooy long et doux voilà eh, si cours bi nag. gaay gaay mën nañ la ëpp doole di lay hmm. saax saaxee mais gis nga bis boo demee ba jàpp ba ba egg fa loolu la waay yi di wax acide fer da ngay wow koŋ hmm. pour nit daan la yomb. Hmm. Balla Gaye gis nga démb combat bi boo ko xoolee ak booy. boo ko xoolee ak booy man man man man man man làmb laay supporté. man su ma sañoon Balla du mu sa bàyyi parce que bu bàyyi bëre. lambu mu naax moitié bi dina wàññeeku lamb dootul neex. dañ ko soxla ba léegi dañ ko soxla ci làmb. Mm-hmm. Mm-hmm. Balla bokk waaw Balla na si mbëri yëkkati làmb bokk na si mbëri neexal làmb. dëgg warul bàyyi làmb. warul bàyyi na dem na entraîné ji waat warul bàyyi làmb parce que Balla Gaye rek taxaw si teer teere rek loolu day suqali làmb du intérêt sax ne ne ni ko waa askanu làmb waruñu ko sax seetaan. parce que Balla Gaye boo xoolee pour quatre ans la magee booy ñi. waaw. yaa quatre ans la ko magee loolu gitu. daanaka daanaka ay tof lañ eh. non eh? pour man d'accord mais problème bi mais mais problème bi mook booy ñaar démb bu ñu bëree bala dafa nekk mbër boo xamante ni nii lu taxaw si kanamam noo mënta tool day songu loolu tàmm la ñaari nit laa fi gis ñu tàmm benn façon bëre koo leen mënta tegal bëre bi ñu bëri woon ak ñoom dañuy ñëw songu muy bombardier chaque combat mu def erreur boo xam ne su daanee da koy def suñ ko daanee da koy def ku xam lamb di koy liir dëgg xam nga lu ma wax. comme si Balla Gaye la ñu wax na gis nga Balla Gaye moom xamul ni que kii lay bëree lii la kee lay bëree dañuy ne prix dalay song. nu mënti na boo ñaan rek gis nga li bala Gaye foor moom daa maîtriser loolu. boo leen xoolee ay combat boo ñaa man dama ne mbër la boo xamante ne nii